asalaamaaleykum mbokk déglukat yi seen rubrique sur nutrition tey ñu àndaat ak yéen altine yemoo ak fanweeri fan i weeru avril ak docteur Bintou Charr Seck ñu ngi ci numéro 21 euh, ñu ngi lay nuyu docteur Bintou. ba ngay fay nay Hadi. waaw tey dañuy fas yéene waxtaan ci alimentation ak hypertension artérielle lan mooy docteur euh, tension boo xamante ne dafay yéeg. bon déjà tension nañu xam ne nii mooy euh, pression boobu nga xam ne suñu deret moom lay exercer ci sidit yi. Euh, léegi pression boobu nag dafa am norme am na boo xam ne foo xam ne dafa normal mais bu demee ba yéeg non seulement mu yéeg mais mu des fa dañuy naan nit ki dafa am hypertension artérielle maanaam mooy tension boo xam ne daal day yem ak 14 9 euh, wala mu ëpp ko mais nag tension boobu bu ñu yow hypertension boobu ñuy dé ñuy diagnostiqué médecin docteur moo koy diagnostiqué. du rek nga dem ci nit ki dem ci pharmacie bi. ñu ne ko sa tension eh, gën a dix huit neuf mu ne man dama dama am huit dama am tension loolu docteur mooy dem euh, cette tension bi ay yooni yeen yooni yoon ba noppi mën a xam ndax kii dafa am hypertension ou pas bu boobaa bu prescrire ay ay ay garab mm-hmm. euh, hypertension dafa xam ne dafa nekk loo xam ne dafa bari ci suñu dëkk bi xam naa ne ñuy déglu ñëpp bu ñu seetee ci seen euh, ci seen entourage mm-hmm. xam nañu ñu bari ñu am tension ñu am hypertension mm-hmm. xayma nañu ni téeméer boo jël ci suñu dëkk ñaar fukk ak ñeent yi am nañu hypertension donc bari na lool. kon mi ngi law bien sûr. mi ngi law ci dëkk bi. Mhm. Euh, te nag li bon ci tension boobu c'est que duñ ko fajul mën na indi ay gàllankoor yu bari yi ñuy wax ay complications. benn bi mooy AVC boobu tam li ñuy faral di dégg la muy accident vasculaire cérébral mhm. mën na nekk crise cardiaque mën na nekk jàpporo ñoo yi ba ñu am insuffisance rénale mën na indi yeneen ak yeneen mën na gàtt ay bët aussi euh, yoo xam ne ñu koy gis ci dëkk bi loolu yëpp tension boo xam ne kenn gisu ko woon moo koy moo ko mën a indi kenn gisu ko kenn xëju ko moo ko mën a indi. mais lan mooy indi tension bu yéeg docteur Bintou Cheikh Seck. alors tension boobu euh, mën na nekk am na li ñuy facteur de risque cest à ne bari bu na ko indi tension benn bi mooy euh, l'âge xam nañu ni boo demee ba yenn âge yi te cinquante ans sa risque am hypertension day yokk waaw mu gën na bari ci góor yi que jigéen ñi donc le sexe aussi am nekk na facteur de risque mm-hmm. stress xalaatu euh, àddina dina indi tension euh, diabète dina indi tension ak yeneen ak yeneen mais ci euh, suñu ci wàllu lekk xam nañu am na ay facteurs yoo xamante ne alimentaire yoo xam ne dafay jouer ci tension bi benn bi mooy déjà bu fekkee nit ki dafa am yaram bu mu ëpp c'est que nit ki nekk en surpoids xam ne ni loolu dafay indi mën na yokk tension koo xam ne dafay lekk xorom bu ëpp Euh, loolu wax nañ waxtaan nañ ci ay yoon yoon mm-hmm. mm-hmm. waaw mais xorom su ëpp dañ ci dellu si euh, aussi koo xam ne dafay lekk euh, maanaam graisse wu mala te ñuy wax graisse animale mm-hmm. bu mu ëpp boobu tamit mën na jouer ci tension bi koo xam ne li muy naan ci alcool maanaam sàngara dafa bari loolu tam mën na jouer ci tension et enfin ñi nga xamante ne seen lekkum légumes ak fruits doyul ñooñu tam seen risque am tension bu yéeg dafa dafa xaw a xaw na bari. Mhm. waaw euh, wax expliquer nga lan mooy indi tension bi euh, mu faral di yéeg euh, mais également su yéegee am na ay garab yu ñu la war a jox mais garab yi am na lu mu àndal ndax problème bi lekk daf koy laxasoo docteur yan conseil ngay jox ñu jàngoro ji dal wala ñu mu dalagul ngir ñu moytu. waaw lekk bi laxas moytu bu baax parce que. Euh, c'est vrai que dañuy joxe ay garab te garab yooyu day contrôler tension bu baax mais il faut que ñu rax ñu rax ci ay ñu ñuy wax mesure hygiéno-diététique c'est si lekk suñu ni ñuy lekkee seet aussi euh, ni ñuy doxalee suñu àddina en général euh, fi mu nekk nii gis nañu ni mesure yooyu d'abord déjà ci wàllu aar prévention dafa baax mhm. ñi nga xam ne amaguñu tension conseil yi may joxe nii baax na ci ñoom pour que mm-hmm. tension bañ leen di koy voilà euh, ñi nga xam ne dañ ko am nag gis nañu ni bu ñu toppee conseil yi non seulement day wàcce seen tension mm-hmm. mais dafay tax sax garab yi ñu leen dindal gën a efficace maanaam garab yooyu gën a def seen gën a mën a def seen liggéey mm-hmm. am euh, gën a am effet wàññi tension bi euh, et puis bépp manifestation clinique maanaam fekkee ni tension bu la dikkalee bu dikkalee nit ki boppam day metti wala muy miir bu fekkee ni topp na conseil yi dina wàññi également euh, manifestation clinique yooyu dina wàññi symptômes yooyu. Mhm. waaw donc la. conseil yi benn bi mooy déjà manger équilibré boobu moom defe naa muy dellu si ni wax gis bu leen wax ko ñu wax ko donc ñi nga xamante ne xamuñu daal vraiment loolu mooy lan wala dégguñ ko mm-hmm. nañ dem ci suñu émission yu yu kii yi ñu def avant yi ñuy dégg loolu mooy lan manger équilibré yebale lekk daal euh, beneen bi mooy bu fekkee nit ki dafa am dafa rëy dafa rëy dafa excès de graisse dafa nekk en surpoids war na def ba war nekk loolu dina dina améliorer tension am mm-hmm. Euh, waaye ñi xoolal alors suñu émission euh, defe naa moo doon le du 5 mars. waaw wax nañu wàllu xorom ni émission boobu yëpp dañoo wax xorom ak ni ñu wàññee xorom. xorom mhm. dama koy bantuwaat rapidement. dañu ne woon ne nit ki lu mu lekk lu frais moo gën c'est-à-dire que ni xam ne dañ koy jënd. mu ay supermarché mu nekk les aliments transformés parce que yooyu dafa bari xorom. Mhm. donc loo xam ne yaa ko mën nga ko toggal sa bopp moo gën. Mhm. te togg boo xam ne dañ ko jënd. beneen bi moo doon ñu bàyyi bouillon cube loolu tam wax nañ ci plusieurs fois. Mhm. nañ bàyyi bouillon cube yi parce que bari xorom et euh, di éviter di di dal dolli xorom bu bu maanaam bu ñu toogee di lekk bu nit ci toogee di lekk nii jël arôme ay arôme di dolli ay mhm. loolu tam war nañ ko bàyyi mhm. euh, am na loo xam ne ça me tient vraiment à cœur te que ñi ñuy déglu nii nañu xam ne ni bàyyi xorom guddi baaxul loolu dama koy waxaat ah mais ñi am euh, tension ñu bari nag ñu ma xam docteur tamit dañu ci lool lañ nekk de du ñu lekk ci xorom guddi daanaka du ñu lekk sax la wax ci xorom si yeneen la ñuy jéem a jël di ko utiliser ci gi. loolu c'est un très mauvais conseil et saa yu suma dajee ay sama ay naataango damay koy wax waxaat ko amul benn preuve amul benn raison bu mën a def ni nit ki bàyyi xorom guddi parce que dafa am tension li ñu wax mooy kooku ku mu mën ci doon dayoo sax ñun ñëpp ñu ko am tension ku amul tension war na wàññi xorom. mais ku am tension dafa war a wàññi xorom toute la journée. waxuñu nga lekk ci xorom si ba mu neex la après guddi nga ne duma reer pour rattraper loolu amul. Euh, wala aussi nga bàyyi euh, nit ki bàyyi lekk si ci ci ñamu xorom daal lu war a am xorom. dem ci ñamu soow yi su ko defee li muy lekk ci suukar bari. wala li muy lekk ci graisse gën a bari. Mhm. loolu yëpp ay déséquilibre la mhm. lii nii tere xorom le soir ci guddi gi ci reer bi baaxul te kenn waru ko tere. am na nag suñu ay nit yoo xam ne dañ leen naan dañu am tension docteur bi bu dañ koy xorom muy soir ñoom ñoo koy tere seen bopp. ah dégg naa jiwu ne woon nañ ko bu mu nekk xorom. comme ñoom dañuy jàpp ne rek xorom sa yéeg. donc lu ñu mën a def ba xorom si wàcc dana ko donc ñuy dëkk yëpp nañ jàpp loolu. lu soir li ñu war a def mooy yemale xorom boobu comme ni ñu ko waxee. ñi nga xam ne dañuy naan sàngara war nañ ko wàññi wàññi bi mooy nee nañu. ku euh, bu fekkee ni ku jigéen la warul dépassé benn verre benn kaas bu fekkee ni ku góor la warul dépassé ñaari kaas. Euh, beneen mooy euh, ñi nga xam ne légumes yi maa ciy dellu si loolu nga xam ne dama koy waxtaanee tous les jours parce que dafa am dafa am solo. ba nga xam ne nga xam ne daal ci mën a lekk bu amee tension loo ci mën a lekk rek muy gën di baax. tension loo ci lekk daal doyul loo ci lekk doyul nee nañ ci war a lekk lu am solo euh, ci ak lii lu am solo ci nawet bi. Euh, bu gën buñ ko gënee yokk sax moo gën te man mhm. ndékki bi boole si tuuti salade mhm. baax na ci waaw et puis fruits yi ñu ne aussi war na mat au moins ñett ci journée bi mhm. comme ça loolu moom dafay sa joue ci tension bi et beneen bi ci des bi ci mujj mooy sport bi sport dafay wàccee tension dafay réguler tension mhm. maanaam ñett nee nañu ñetti yoon ci semaine bi mhm. nga jàpp ñetti bés yoo xam ne di nga am euh, sport di nga def sport au moins euh, fanweeri si trente minutes ba jàpp quarante cinq minutes mhm. ñetti yoon ci semaine bi dina ci baax loolu euh, jërëjëf docteur gis nañ ni aussi café dinañ koy tudd lool ci wàllu tension day koy yokk wala dafay wàññi alors café loo xam ne dañ ko tuumaal lu bari ci wàllu tension liñ ci xam mooy ne café boo ko naanee caféine boobu day tax tension bi day yéeg mais yéeg boobu dafay yéeg rek après euh, bu ci benn waxtu toftalee mu wàccal donc mooy li ñuy wax c'est une transitoire du yàgg mhm. donc euh, ba sax boo sax ko xam ne da ngay bëgg sa tension boo naanee café war nga bàyyi benn waxtu boobu jàll bala ñu koy mesurer mais du tension café du def dara ci tension de manière permanente donc kuy am mhm. na beneen idée aussi boo xam ne bëggoon naa ci ñoom si mooy wàllu euh, laaj ñu ñuy dégg ñu laaj dafa baax ci tension. waaw loolu moom man mii sax dama koy sax. dañ koy faral di wax nañ ko ci tension wax ko ci cholestérol ko ci yu bari. et en fait euh, da amul amul cest bu ñu ko gës gëstu nañu laaj. Mhm. gis nañu seet nañu li ñuy def ci nit euh, wàccee tension bokku ci. Mhm. donc euh, kon foofu wax jooju jóge wax ji mu ngi jóge ci euh, à un moment dañ ko xalaatoon mhm. ba ñu dem gëstu ko am def ay études scientifiques seet ko sous tout sous toutes les coutures mhm. ba gis ni ne laaj bii daal liñ ci doon wax nekk ci donc laaj du wàcc tension moom koy wax sama bu fekkee nit ki mu ngi lekk laaj parce que fu bëgg laaj man bëgg naa laaj aussi ton ñu. am na ñu mm. koy dem ko xool defe naa ci ay bouteilles ndox mi. am na ñu koy xool am ñu koy éclater di ko lekk noonu ci suba si. Mm-hmm. Euh, loolu yëpp su fekkee ni xalaatu tension muy wàcc la yaa ngeen di sonal seen bopp pour ñaan. Mm-hmm. bu fekkee ni bëgg laaj la mën nañu continuer parce que laaj mënu leen gàllankoor. Mm-hmm. mais daal nañ leer ni laaj boobu amul dara lu muy indi ci wàññi tension. donc loolu bëggoon naa ko leeral. docteur ñu tàggoog auditeurs yi ak sa euh, page Sud waaw kay ñu ngi am suñu page Sud Nutrition di Facebook. Mhm. Euh, page boobu mën ay laaj yoo leen di laaj ñu ko boo leen amee ay suggestion thème am na ñu bari ñu suggéré ay thèmes bari ñoote ko. Mhm. Euh, donc suggestion de thème aussi ñu defee ko fa. ay am na ñu bari ñu fay dem pour encourager ñu loolu itam baax na torop mhm. donc Sud Nutrition bu leen fàtte page Facebook merci beaucoup docteur Bintou Cheikh Seck mbokk déglukat yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant.